lam sa boo indi coow muy Balla Gaye de Gris Bordeaux non euh, nu mu tuddati Modou Lo ak Balla Gaye seen revanche yaa ko tëggoon mhm. nit ñu bëri ne bi mu koy tëgg yow sa tëggoo ko dañ la tegoon noonu rek peut être moo nga woon Aziz Ndiaye ko mhm. Mhm. defe naa jàppoon na sa diggante ak Aziz moom boobu loo ci mën a leeral non non du ma ci leeral dara parce que man tollu wu ma fu may leeralante man xam naa ne xajuma ci ginnaaw kenn man damay boot mais kenn ba boot nit ñi nag tout le temps su suñu gisee ñi ay nit ñuy nekk ba Aziz ànduma moom Aziz sama doom la mu jox ma respect bi ma war a jox comporté wu en doom ci sama kanam muy sama doom bu ma respecté Aziz waaw ni mu respecté euh, El Hadj Ndiaye noonu la ma respecté jox ma cër man ku ma jox cër ma dellu la cër Aziz Ndiaye ren sax daf koo fësal far sponsor pour quelle raison ñu bëgg ay orange ay tubaab yi ay Patisen ay Sococim di nekk sponsor di fës kenn kenn du wax dara Aziz tey yàlla di ko suturaal di ko suturaal di ko suturaal mu nekkoon ci làmb ci yàgg mu génn ci làmb nekk ci euh, liggéeyam dëwlinam jalor ba mën a nekk esponsor sponsor yi dañu ko yàtt gi làmb ji lépp les sponsors yu mag yee daan def ñoom orange yooyu loolu la def joxe alal waaw loolu la def ci combat boobu te moom la fas yéene defaat ci combat yi. te su fekkee ne gis na ci boppam et tout moom la fas yéene defaat parce que même wax na ko waxal na ko moom lay defaat te mi ngi euh, c'est pas keroog dégg naa maa ngi liir mu ni euh, moom day accompagner Gaston ci combat Balla Gaye bi. day accompagner Gaston ci lii parce Gaston sama papa ku mel ni un gosse très sérieux prince. waaw nga xam ni. doo ko dégg mukk ci ay waxantu ku mel ni Kandji production nekkoon na fi nekk xale boo xam ne dégg nga li mu def ci làmb booy yi sax defuñu ko fi. Kandji Kandji daan na fesali ba mar li mu def ci làmb man la booy yi sax defuñu ko fi mais ak correction ñun ñëpp nañ correct bu nu seet rek ni Gaston man nag amee naa sama tempérament boo xam ni xëy na tàng naa def naa lépp. mais aw ma problème. aw ma problème aw ma problème ak kenn. loolu moom dinaa dinaa am lu ma ci confirmer ndax. li problème bi mooy li tax mooy kilifa nga goo xam ne tey defe naa yàlla dogal na loolu ci yow mais saa yu ñu la wooyee téléphone. nga man. mais defe na Sénégal yu bëri def nañ ko saa boobu. waaw non non non non kooku am man aw ma problème bi yooyu xëy tàng naa nag. <laughs> tàng naa ñu defoon dama tàng mais kooku du tàng sax tempérament la rek. bu mel noonu. kenn nag làmb ji nag ku ci nekk nag soo tàngul ñu rey la de. Ah. soo tàngul ñu rey la gis nga làmb moo mel noonu te it nan bàyyi ñi jëndaloo nit fas biir. jëndaloo leen ko koo guble conseil boobu mm-hmm. promoteur yi laa koy jox. gis nga sama kër gii ngeen toog. Mm-hmm. saa yow fi ma daan dugg ne dafa ngénte fi xew. Mm-hmm. fii. waaw daf daan da nga ngénte bis bu ne dama daan ngénte da xew a fi nekk. al euh, làmb yëpp fi leen daan daje. ba ma bàyyee làmb gisatuma kenn. loolu loolu làmb mel noonu. làmb mel noonu moo tax. yaay li yëg yaa man li yaa fi nekk ak yaa li nga fi def li ngay def nii kenn mësu ko fee def xam nga loolu mooy takkal nit. mooy mooy mooy jaay gumba ba mu dem di jënd billet cinéma rek. ah loolu naa wàcc bés yi ñëw ci lamb di ay promoteur yu bees di leen wax rawatina waa ñoom ci ci man li ma waaraate ci lamb kenn waaraate wu ko ci su ma nit ñi déglu woon nit ñi def nañ ci attention. parce que man su ma amoon beneen kat bu mel ni Gaston. bu dul man mm. avant man xëy na du ma dugg sax ci lamb parce que li ma waaraate ci làmb parce que man nëbbuma dara ci làmb daan naa waa daan wax ci làmb sax ba ni kii dafa iñaan dafa bañ ku ñëw fekk boobu man bañ li ma dal dal leen rek la pour ñu def attention wax mu ñu bàyyi mais ñu def attention di organiser avec méthode parce que lépp loo gis dafa laaj organisation ak méthode su loolu sa diggante ak sa nit ba tey dama ci des rek muy ku mel ni Mbaye Fall xam nañ ko Gaston Production mbay Zack Diop Aline Guèye ñoom Issa Ndiaye ba ci sax ba da jot ñoom ñëpp a ngi fi ba tey waaw même Mbaye Fall mi nga xam ne sax seytaane xawoon naa dox suñu diggante tey dellu si na au premier plan moom mooy le coordonnateur principal bu Gaston Production ànd ci ak Abdoulaat Ndiaye laat waaw ñu ko ñëw na nekk xale bu baax moom it nekk xale bu baax bu bëgg li muy def tey su ma sañoon tey mu ànd ak promoteur yëpp nekk di di wax ak ñoom di leen jàppale. parce que xam naa ni ma ko gisee parce que man du ma dof. damay seetlu nit. ànd na fekk Aziz Ndiaye ànd na fekk Pape Dou Fall tey mi ngi nii ànd ak man ànd na fekk Dieye production et tout ça mais xam naa ni nit ku baax la. Ah, seytaane nag dafa bari doole. muy moom di Alioune Gueye. bu Gaston production. Mhm. kooku kenn du dem mu des. ci Gaston production. Mhm. Mbaye Jacques Diop noonu. ñooñu ay ay Gaston production la. bokk ci biir ba ci Père Max Bergan. Père Gaston production la nekkoon mais léegi manager la nan def ci manager <laughs> dëgg la xam nga xam nga naa fekk baaxul wala def yëfu seytaane baaxul mag sama rakk la. sama rakk la sama lépp la ànd nañu liggéey nañu bu baax a baax a baax et tout ça tey ma nga feneen di liggéey. yàlla na ko fa yàlla jàppale yàlla na ko yàlla dimbali sama nit la. te tout le temps daf may woo wala ma woo ko. sama nit la sama rakk la il a beaucoup fait pour Gaston Production mais kenn mënula ŋarale yenn ngarale yi aussi léegi ba léegi it day continuer nekk sama nit waaw su ma ko soxlaa woon dama koy woo su ma soxlaa daf may woo parce que mais mënuma def yëfu naafeq di xool nit ki wala di wax nit ki loo xam ne du ma ko def ah tey mu mel ni kon hélas defe na waxtaan wi war nañ ko mën a tënk fii parce que dafa mel ni li amoon solo laaj nañ ko tontu lañ maanaam tontu na ci tey moom yaakaar naa ne ah, suñu xol sedd na tamit vraiment parce que yàgg nañu koy sàkku ci moom waaye wax dëgg yàlla moom moo ñu fixé rendez bi muy koo xam ne comme ni ma ko waxee léegi rek ku disponible la ci par rapport ak boo ko soxlaa pour war ko jot ak yooyu te yooyu yëpp mënoon na ko jafeel bu ko neexoon mais euh, yàlla def na doxalewul noonu kon loolu tamit dañ koy seeralaat Sénégal di di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal gudd fan di la wax ne papa lan ngay tàggoo Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi lay suivre à travers Equivox TV. waaw di leen euh, tàggu yéen tam mais su avant tàggoo bi di leen ñaanal yàlla yéen itam di leen encouragé. di leen encouragé Equivox TV di leen encouragé di encouragé seen naataangoo yëpp. di leen wax ni teg leen lépp ci yoon rek. Mm-hmm. bu leen euh, def ay émissions yoo xam ne pour bu jaxase ay nit la wala pour mbëkkalante ay nit. Mm-hmm. loolu dara jar ko fi. mbëkkalante diw waxoon na lii diw ne na lii jaafi ne woon lii yooyu yëpp ay jëmalewul Sénégal kanam. seet leen li rafet lii jëmale Sénégal kanam ngeen koy teg seet leen dëgg aussi su leen nit waxee dëgg ngeen koy teg euh, bañ a nekk naa féq bañ a nekk aussi euh, ñoo xam ni dañuy dañuy ne suñu émission neex rek luñ ci wax baax na loolu jëmul kat wax leen lu yenu maana loolu man laa leen di conseiller cay conseil nag millier làmb aussi ñun ñëpp benn famille la muy amateur bi di manager bi di mbër mi di promoteur bi ñëpp benn famille la nañu yéenante jàmm nañuy seet li ñuy wax nañuy yéenante jàmm parce que ku ne li yàlla bind ci yow li yàlla euh, sàkku ci yow mënu kenn mënu la fexe ba doo ko jot fii kenn mënu fi dara Gaston mënul dara ku yàlla jàppale rek moo fi nekk yàlla nañu yàlla jàppale yàlla leen yàlla jàppale jàppale ñëpp jàppale Sénégal Sénégal jëm ca kanam defe naa daal loolu moo ëpp solo ci nag ñuy may encourage ñëpp it ñu ku ci ne Euh, di gëstu di seet liggéey bi di seet méthode perpétuelle bi nu ko mën a defee parce que làmb ji moom mënuñu ko tëj. mbër yi lekk avance aussi sonn noonu. war nañoo bëree. Mhm. il ñu fexe nu ñu bëree gaaw. te biir bi kay du mën a ñàkk. mën a ñàkk donc euh, loolu daal la di ñaan yàlla mbas mi jóge fi. dal mhm. na ko fi yàlla jëlee. te it di ñuy respecter mesures barrières yi parce que kuy caaxaan topp way président Macky dal war a tëj dëkk bi war wala nangam président Macky Sall li mu def xam na ko soo gisee fan yi ñiy dee ni nu bare cas yi ni nu bare ku am xel wala kuy nitu dëgg da nga jox président Macky Sall dëgg nga xam ne li mu def responsable parce que moom moo amee responsabilité population yi. mais ñi wax naan vaccin bi ay kii la ak yooyu am na ñoo xam ne dañuy vaccin bi mais xam nga Sénégal tubaab bi non Sénégal Sénégal dafa ragal naa ne su yàlla indi loon yonante bi sax ñu ne du yonante bi. di il faut ñuy weddi. loolu ñun suñu feebar la loo xam ne dikkagul ñun am na ni médecin yu ci war a wax. man soo ma ni woon médecin yi nee nañu vaccin bi baaxul ma mën a wax mais ay euh, personne daal nekk ci mbedd mi rek loo indi loo teg ñu tegi teg fule nekk na sax suñu làmb ji xoolal suñu dagg billet di ñëw di toog ci làmb ji su soo demee Sandaga suñuy werante ñoom lu ñu wax ñu weddi ko ña toogoon ci télévision yi site yi. waaw ñooy weddi. ña ne woon ca làmb ja lu nu wax ñu weddi ko. c'est-à-dire que Sénégal am dañoo mën a weddi. Ah, mais dafa ànd loolu nag dafa mais dafa am médecin yi dañ ciy déggu ndax am na médecin yu ne waaw am yu ne déet est-ce que. loolu non mais loolu lépp. Mhm. amul responsabilité wax ci. ok médecin yi ñoom suñu weddante suñu gisante ci seen biir. Mhm. ba coordonné waxtaan. Mhm. doon trouver solution mais du Gaston wala une personne daa mooy taxaw tey di dugg ci affaire wu médecine. lu ma ci wax naa feq lay doon seytaane lay doon loolu man du am na solo macha allah conseil bi am na solo ñu lay ñaanalaat gudd fa ak wér-gu-yaram rek di kontaan yow di ñëpp ñi nga xam ñu ngi ñoo doon suivre fu ñu mën nekk si àddina bi ñaan ñëpp jàmm mais hélas nag di nuyu ki nga xam ne nii moom moo di Omar Tawa nekk ca Mar Asalem di mbokk di doomu ndey Saliou Khoule bu Zik FM Omar moo ma solo lii ma solo tey père defe naa Saliou Khoule moom itam sa doom la. non sa damay dégg buy ah, animé tout le temps. Saliou Khoule ku baax rek. waaw. nit ku baax. xam nga àddina bi Sénégal saalu ku luy war nañ fee bari. Mhm. ñoom dañuy ku mel ni dégg nga nu ko waaye bari nañ fi daal ñoo xam ni wax ju baax rek la ñuy wax. Saliou de moom. wax ju baax. wax ko du yàq dara sa mbaax. déedéet li du yàq dara sa mbaax. Mhm. xam nga tey li nga def nii tey félic euh, gërëm. Omar Tawa Omar Tawa. Saliou Khoulé ba booleeg mais mais sa mbaax a tax nga def ko du du dóor. ndax jox na la ko sol nga ko ba pare. jaratul dóor jaratul dóor. <laughs> jox na la ko nga sol ko ba pare mais soo gërëmee ñu ni ma ngay dóor. <laughs> réew mi la la fi laat Cheikh Abdoulaye yàlla na yàlla yokk leeram doon na géwél amul ku la defal lu baax nga wax. nga wax ko mais su boobaa ñu ni ma ngay dóor. ma ngay dóor. man de dóor kat sax lañ may wax boo waxee dóor. waaw non non waaw d'accord mais sooy nan lay gis rek sooy dóor. <laughs> na nekk euh, bantu bale rek mu wóor la ni da ngay da ngay bale waale muy set yaa ngi yaa ngi setal <laughs> yaa ngi setal voilà mu bañ a gaañ kenn kon noonu la demee papa ñu ngi lay bëgg di lay ziar hélas di leen nuyu yi moom itam vraiment di ko truc ku ku am maîtrise la moom waaw hélas bien sûr président mu téye ñaari appareil di ko manipuler ñoom ñaar ñëpp non technique moom macha allah da ci aay donc góorgóorlu leen rek gis nga yii yëpp yëpp mbiru euh, ay sénégalais ngeen war liggéey mhm. liggéey leen dëgg la bu leen kenn découragé seen liggéey. dëgg la liggéey leen. yéen ak seen yeneen naataangoo yeeg ñi fi nekk ñi fi nekkul ak ñëpp. gëm leen liggéey ngeen liggéey mais ay wax ju bon ak ay ay dàggasanteeg. Mhm. ay gaaruwaalanteeg yooyu yooyu jëmalewul réew kanam. dëgg la. jërëjëf kontaan nañ di jox gars yi kon rendez-vous rek beneen ak beneen invité ak Babacar du mën a ñàkk di nuyu nag sama mbokku bool bool ndax ku ne man xam na ne bool laa dëkk hmm. hélas dëkk Saalum Père dëkk Njàmbur ah, kon hmm. noonu la Sénégal tëdd di nuyu waa Njàmbur waa Siin ah. Sénégal yëpp waa Fuuta ak Casamance ak waa Waalo ak waa Waalo ah waa Bokkal <laughs> man may nuyu waa ak yaay sama dëkk Ndand waa Kébémer <laughs> waa a hmm. nañ fépp fu Njàmbur Njàmbur nekk ko di ñaan Sénégal gaal gi mhm. bul ñaan sam ëmb mucc mais ñaanal yàlla gaal gi mucc bu ko mhm. defee nga mucc ëmb yëpp mucc mhm. te président moo yore gaal gi kon na mucc ko defee réew a mucc ku président Macky Sall dana jàppale làmb ji parce que ku jàppale làmb ba feebar amul dara amul nga jël stade 32 milliards joxe am yaakaar ci làmb ak gëm làmb moo tax mu def ko kon kooku su feebar amee tey muy jàppale ñeneen su làmb taxawee bu kenn xalaat ni du jàppale làmb dana ko ah, jàppale am na solo loolu soo ñu ko waxee dinañ ko gëm kon gars yi leen jox dig daje rek hélas beneen yoon insha allahu rabbi yàlla na yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu wa sallam